waaw. jot a nuyoo sax ma woon mu ndax rek. ñu nuyoo Sëriñ Tuubaa bu jëm Seex Ibra. Sëriñ Muntaxa mi ngi nuyu njabootu Seex la yabaloon na ñëw taxaw fi. jot fi ab siyaara. ndax lépp lu xew ci kër Seex Ibra. Sëriñ Tuubaa ko war a taxaw. wax naa ko léegi muy lu suñu borom bi ndogal bi suñu doxal seqee liggéey bi suñu saa jëmm. kon njaboot bi saa mm-hmm. yëpp mm-hmm. ko dund di ko yëg. Mm-hmm. di ko bëggee di ko na fi. kon nañu saa yëg suñu mu xam ne. a jàpp a mu tax ne jàpp njabootu Seydou bi yëpp. ak sa bëgg fii yëpp ji amee tey. ñu ngi fiy seetlu këllëri boobu. ak sa loolu moo tax mu yabal la. jërëjëf Mbacke. parce que ay ñaan rek. Mhm. ñaan ñu yàgg def ñaan gi. ñaan yëpp. Mhm. dellu ci seen i borom. wala mhm. Seydou bi rek li si ñu saa moom mu tey jii. ñu leen yokkal leen gën a dëkk Sëriñ Tuubaa gën a yokkal leen ngërëmu Sëriñ Tuubaa ak sa amiin seen ngërëmu borom amiin loolu la suñu borom bàyyi a yàgg amiin amiin Mbàkke naa ne ko wér amiin Mbàkke bi li muy yaatu yaatu a mel amiin mu mel ni day mel ni ndigal yi daa mujj rek mhm. nga ñëw fi mhm. toogee ba tey Hmm. baat bi daan bàyyi ko kër Sëñ Tuubaa di ñëw kër Seex la hmm. saa yi baat bi ñëwee yaa ko indi mu mel ni miin na la ci dajee Baye Fall bu mën a doon hmm. liggéey bu mën a doon bañ a ko Serigne Cheikh Mbacke Abdou Latif la wax waaye Serigne Cheikh Mbacke Baye Fall loolu moom ko yaakaar Seex Fall miin nga ko loolu moom Fall Mbacke ñëpp ci sant nag di leen ñaanal sa borom ah. guddal soo fan te dolli sa wér ndax Serigne Saliou Fall mi la koy seeral léegi sama tawfeex waaw waaw loolu jàng mhm. lamiñ mënu ko tudd jërëjëf Mbacke xam naa dañ ma ko dimbalee rek incha allah yàlla ko am baax la amiin barke sëñ Tuubaa amiin Mbacke amiin amiin Mbacke ñu jégg lu baax a baax nag amiin Mbacke loolu day fekk sama classe bi duñ mën a xam ci moom dara tey faaw ma it ma am ñu ma xam maa leen mag ci moom kon dañ ñu gën a tuuti dootuñu xam ci moom dara te ginnaaw yàlla dogal na sëriñ bi fekkoon na ci moom ah ñu laaj sëriñ bi rek diggante sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ak taalibe gi ak bokk gi ak bisu tey bii Bismillah. <clears throat> <clears throat> Fall asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bokki taalibe yi njabootu mbaam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi leen di nuyu ci bis bu tedd di ci di te di leen ko baal li sëñ bi wax nag léegi lépp dëgg la sëñ Seex day jàmbaar joo xam ne bii bi dafa donn ak njàmbaar ndax donn njàmbaar <coughs> moo ko jotale ci bis bi tey di bis bi nga xam ni wax nañ ni mooy bis bi sëriñ bi gisee woon ak sëriñam ba Cheikh bi gisee ak sëriñam ba yàlla séddee ko ko mu di ko def ca Kawlax ba bis ni ki tey xew-xew bu jamono nag tax at yi ñu taxawal ko waaye teewul ñu ngi koy def ci ak ak dal ak mbooloo mi di séddante li docteur yi digle sëriñ bi digle ko ñuy takk masque yi tey mayante distance ndax loolu lépp suñu bopp rek tax ñu duñu ko wax waaye du du du du leneen sëriñ bii nag nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Fall Khady moom euh, ku ko xam-xam ne euh, jàmbaar la ndax ci jàmbaar lañ ko mas a xam kenn mës a xamit mu wone boppam ci biir Cheikh Ibra ci laa soqi ko wala sëñ Modou Moussa mooy sama wayjur te te te ci ñi fi sëñ Modou Moussa bàyyi daanaka ci ñi ci mag ci la bokk waaye daawu ko doxee daawu ko waxee foo ko gis rek ci taalibe nga koy gis moom lay doxee moom lay waxee mooy léppam euh, ku gis mbooloo mi itam nga xam ne moo leen formel boppam ku leen gis xam ne ki leen yar teg leen ci yoon am na fu mu leen teg mhm. muy li nga xam ne mooy suñu njëriñ tey di suñu njëriñ ëllëg mhm. muy ak taalibe mhm. muy góor ñi muy jigéen ñi di njabootu boppam bi nga xam ne it moo leen jural boppam ñoom it naka naka noonu te sàllika <laughs> noonu la mel ñoom ñëpp koo ci gis rek bu ñu kii euh, sëñ sa xadigee wajuram dañ ko mën a gëm ndax melokaan wa muy mel kon nag li liñ ciy dolli daal kàddu yi moom xam naa ni du mën a gudd waaye liñ ciy dolli mooy jàmbaaraam yoo woon noonu ñu joo xam ne jii nii dafa liggéey ba wàcc euh, fa mu wàcc wane euh, dëggal na sama kàddu yi may wax ndax kenn ko day xam na ni fa mu wàcc ci xel koom noppaluwul da mm-hmm. daa ci liggéeyu sëñ bi mm-hmm. ba suñ borom dikk ak coobareem mm-hmm. jël ko kon loolu rek doy na sëkk ci ci ci melokaan ndax musta na ci benn yoon yittee boppam dama daan gis bu ko sëriñ bi masaan di yónni ci dara daf ma daan woo ma ñëw mu ne ma damaa bëgg nga gunge ma ndax sëriñ bi daf maa yónni mhm. barab sàngam mhm. ba ci sëñ moo taf tasif <coughs> bi mu faatoo mhm. waaw suñu man ñi maag moom a ànd mu dem jaalale ko sëriñ bi dellu siwaat muy koo xam ne kii ni fu ma àgg rek dana fa siggal kër Cheikh Ibra ci melokaan ndax ñun kat suñu kër bi dafa am melokaan woowu moom rek lanu lanu am te moom la ñuy doxe te waxtu wu ne it moom ci loolu la ñuy séenu bu néewul ci ñun rek leneen lu te suñ Cheikh nag moom ku ko mas a xam rek xam ni ci taal bi rek la mas di dox naka jekk waaw di nit ku baax di nit ku yiw ku bëgg mbokk ku bëgg taalibe ku ku nangoo sonn ci doomu aadama bëggul it dara lu ñaaw mosu ko bëgg waaw ci li ma xam ci moom lépp ñu ànd ko waaw mu jàmbaar joo xam ji daal bu ñu ko royee moom fu ñu bëgg àgg daan fa àgg waaw ndax ci bo nooy loon ci boppam daal ci sëriñ bi rek la nekkoon kon ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp mm-hmm. sëriñ Fall mi nga xam ne mooy doomam it mm-hmm. ak njabootam bii di sëriñ Moustapha ñoom ak gone yi mm-hmm. ñoom itam noonu la ñu mel wax dëgg yàlla ku leen gis xam ni sëriñ Cheikh Adigueye moo leen jur te am na fu mu leen teg ndax nit dina jur euh, ak njaboot sax te xëy na na na na ma mel du ñu mel waaye nag moom wax dëgg yàlla waa këram ni moom rek lañ mel bëgg ñu loolu ak taalibe te it nañu ko waaw wutuñu ci àdduna dara kon ñu ngi leen di ñaanal it nag ñu àggale seen liggéey waajur woowu ba ba ba ba fa mu ko bëggoon a yeggale ñu yegg fa ñu ngi sant ñëpp di ñaanal waa daayira bii nga xam ne ñooy daayira sëñ bi itam te mel melokaan ñii ñu mel ak nii ñii ñu yaroo ak nii ñu dale ku am na fu ñu jaar am na ku leen ku leen ku leen fa teg am ku leen ko wax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal baax na mm-hmm. dafa mel ni sëñ bi amna lu junj ci ay waxam. waaw. digënté sëñ Cheikh Fall hadigay ak ñi bokk si Mourou Moustapha. waaw ak ñi bokkal mam Cheikh ibrahim Fall. Mhm. ñu mën ci tuddu ay tour rek. Mhm. sëñ bi gën ñu cee doon léral waaw mom de bo né bis amna fukk ci ko yoni waxal man la wala ma. waaw waaw man dem doxé lola waaw kon dem na doxal digënté ma waa kër si Mourou Sadio na. waaw lool ay rakam ak ay magam. ba bëgg na ci ñu laal tuuti digënté lool lool ñu defal waaw waaw waaw ndax diggante la bo xam waaw. lu bari am nañ ci ay xam gën a ci am ay dégg-dégg am na ay dégg-dégg yu ñu ci waaw waaw te it li nga ci mën a xam ña ko ciy dégg duñ ko ci mën a xam mm-hmm. kon nag bisimilah waaw ànd ak sëñ bi ci li ma la wax sànga ne la mm-hmm. ci mag ñi ñi fi sëriñ bi bàyyi woon ci la bokk mm-hmm. ndax moom defe naa ni ginnaaw bu ko sëñ Cheikh bu bu bu sëñ Modou jàllee <coughs> sëñ Modou Mbène jàll sëñ Cheikh jëmm ñuy jàll yaakaar naa ni xamatuma keneen ku ko ci féet ak mag ci góor xamatuma kon bokk na ca mag ña waaye nag dama laa wax ne la mosu ko wane moom naka jekk sëriñ bi sëriñ la ko defoon doo ñëw mukk ba xam ne xanaa nga xool deret di xam ni ñi ay bokk lañu waaye doo xam mukk ci jëfam wala lenn li mu wane woon yi sëñ bi sëriñ la ko defoon topp ci ginnaaw nangul ko noonu it ne la meroon nag sëñ Seex Jëmb dañ koy bañ ba buñ daan yóbbu ndog yi su sëñ Abdourahim jógee këram day jaar fii ci sëñ Cheikh jëmb ànd ak moom jiital ko man ma jóge sama kër jaar si fii ci seen Cheikh bi ànd ak moom mu dajeeg ñoom fii ci mbedd mee daal di jiitlaante sëñ bi jiitu mhm. mu topp ci mhm. ànd ak moom bàgg mhm. loolu ak nangoo tax waaw wanewul dara loo xam ne lii nii lu dul taalibe la wala sëñ Sufaa ma jur wala noo bokk lii naa ngi déedéet wanewul loolu moom taalibe rek la ma soo wone moom la daan doxee waaw loolu daal mooy li nga xam ne xam naa ko ji ni mu joxoon sëñ Moodu daal noonu la joxewoon sëñ Cheikh Jëmb mi nga xam ne moo moo moo moo ko topp waaw waaw noonu la ko topp ñu itam ñi nga xam ne dañoo mag itam daanaka ku ci ku ci ku ci eh, xaw a dara ndam téyante rek boo wutul la nga yore ko si ñoom da nga yor nga dara dana ko yóbbu ndax dana la teg foo xam ne fii nii yow yaay xam ni kii fii mu lay teg wuroo faa tegee nga wàcc sa bopp rek waaye moom noonu la ko yàlla mel woon waaw waaw ñu ñu sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant ci taxawaay bi ndax sëñ li mu def rafet na lool ndax bu bu ñu ko defeetul koo lax ndax ndigalul sëriñ bi ak ndigalul docteur mu defee ko nii mu ko defee ak cant rek la ndax dara manqué wul ndax alxuraan ji moom moom moo ci ëpp solo jàng dañ ko jàng xasida yi mhm. sikrullaa li nga xam ne moom la ñu séddoo ñi nga xam ne moom la ñu adressé muy buru yàlla wi mhm. ñu ngi ci mhm. kon dara manqué wul waaw te nit ñi it ñu ngi leen di defal xéewal ku toog da nga xéewlu ba tubaarkàlla sant yàlla ñuy ñu gërëm bokkam yi jigéen yi itam nga xam ne doomam te gis nga ne ñu ko taxawoo ñoom itam ñoom ñëpp ñëw mooy li ma lax rek xam nga ne fii boo ñëwee ñuy doom a bu ñu leen nuyoo la ñoom ñu la ñuy seen doo ko mën a xam te loolu lépp ab yar bu leen yar la akub taalibe ci taalibe rek lañ leen teg kon noo ngi sant ñëpp di leen gërëm jërëjëf yàlla nañ ko teew nag ay déwéni déwén waaw barki Cheikh bi waaw waaw jërëjëf barki Baye إله لا إله illallah La ilaha ngir ngeen di jot video yi am solo yi bàyyeekoo fi ci sen sen daru TV da ngay beus fi ñu bind s'abonner ba noppé nga tek ci kolos bi. aha la la. ilaha illallah. Darou Bayré Fall TV, la première chaîne qui valorise la vie et l'œuvre de Mame Cheikh Ibrahima